Euh, jërëjëf euh, xanaa dañuy euh, sant rek di gërëm postiers yëpp tous les postiers du monde ñu ngi leen di gërëm ci seen contribution parce que gis nañu seen taxawaay le 9 octobre effectivement la ñu pour postiers yi def seen fête mais ñu comme que samedi lay tombé ñu def ko tey alors li ma bëggoon wax rek xanaa di ne leen nuyu di leen jaajëfal wane nañ seen jambar, wane nañu aussi une contribution si suñu si suñu doxalin suñu économie suñu nous koom ak suñu société ni muy fonctionner euh, gis nañu même période de pandémie bi euh, livraison bi mu ngi dox et donc poste euh, jàngat que amna rôle bu mu wara meuna jouer euh, jouer en tout moment et en tout lieu euh, walu si période pandémie donc dañu livrer et puis aussi xam nañu aussi kon à tout moment mun nañu def suñu liggéey moo tax ñun tamit euh, ñu yaakaar il faut que ñu am ay jumtuwaay yu bees euh, ñu préparer wu pour continuer suñu liggéey moo tax ñu jënd outil yëpp euh, am ay moto pour continuer liggéey parce que le dernier mètre aussi c'est important am nga fi nga xam ne ne oto mutu munu faa yegg donc suñu moto yi ñoo fay dem et c'est donc am nañu gamme moto euh, auto, auto yu xaw a mag yu 6 tonnes camion yu 30 tonnes euh, pour en tout cas euh, distribuer bépp marchandise wala bépp colis wala en tout cas lettre courrier donc préparé na wuñu donc ñu ngi gërëm postier yi ñu ngi wax aussi gën ñaax état bi mu jappalé poste parce que rôle poste bi muy rôle am dafa am solo si doxalin suñu économie ci fonctionnement suñu société mais surtout créer communication boobu entre nit ñi euh, daanaka suñu réseau bi euh, tax na ba euh, so amé li ngay wax Dakar tay wala li ngay yónnee Dakar tay suba jour plus un wa Matam jot ko wala wa Kédougou donc au poste euh, moo ko war def te mo ngi koy def loolu te amna solo si suñu euh, essentiel tay dañu am euh, lancer nañu produit yu bees bu melni ni jot si express produit bu am solo la ensuite aussi ñu ngi lancer si walu commerce électronique benn foire en ligne post market 3.0 pour en tout cas gën a rataxal jënd bi ak jaay mi et gëna rataxal aussi euh, relation communication entre euh, acteurs yi loolu dafa am solo parce que euh, léegi comme pandémie dafa démontrer que mun nga nekk sa kër soo amee ki nga wóolu mun nga ko yónni mu jënd wala mu livrer la loolu moo tax ñu créer en tout cas foire boobu Post Market 3.0 ay entreprise 100 pour cent Sénégal Post moo ko moom loolu dafa am solo ok merci jërëjëf